jërëjëf mbokki MPROD yi dimanche la combat Tapha Tine ak Balla Gaye numéro 2 actuellement nag ci bataay mystique bi fi lañ toll képp gàllaaj ci ñoom ñaar ku gën a pare mais kenn moo gën a jege ndam ñi la saltigué de Fissel Mbadane si lay Fall ne ma kaay ma wax la ci làmb ji loo xamante ni benn sëriñ du la ko wax. mbokk yi jëmm ji nii am na mbër moo xamante ni tund mbuur ak li ko wër mbër mi mu ngemboon jël na fa mbapat ba bàyyi bëri te kenn mësu koo daan. mu ne ma dafa am lu ñuy daanee mbër dafa am loo xamante ni mooy tax ñu foqarti ndam kan lañ nar a dëpp mbaram euh, ndamam ci ñaari mbëri yi danañ ci dugg ànd ci leeral mais laata loolu ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee lii xew dëkk bi euh, sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk import ñu soog a waxtaanee Tapha Tine Balla Gaye Seex dégg ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp balaa maay sori ci biir kàddu yi damay laajte Tapha Tine ana ay mbokkam yow looy loolu képp laay laaj ci ñi nga xamante ni nii ñoo féete ci wàllu Tapha ci digganteem ak Balla Gaye ana ay mbokki tafaatin ci digganteem ak Balla ndax lii ma gis. waaw muy raam. Hmm. jëm ca ñag wa. wallaahi la azim nax nañ tafatin nax nañ ay mbokkam. Aziz Ndiaye képp ku naan digganteem ak Balla làmb ji dugalu ci loxoom ñaan lu ci. nax nañ leen lim ko jaral. ah ñu naan Aziz jàppalu nag ñu koy wax. li ko làmb ji jaral mosuma gis làmb jum ko jarale. ndax tafaatin dafa am nu mu taxawee ci làmb ji noo xamante ni taxaw ne ñetti yoon fëgg dënam loolu nag bokk na ci li muy rëcc moom tafaatin loo xamante ni bu wëlbatikul jaar fa mu jaaroon fi ngay bëgg a dugg nii ba fa duggee li may bañ mu leer léegi dana leer parce que parce que am na loo xam ne bëgguma mu leer léegi ci diggu émission bi laa bëgg mu leeree sëñ foofu lan mooy njariñal seet ci doomu aadama alaaji seex dégg da ci am loo xamante nii boo koy jëflante ak doomu aadama yi faaw mu leer mm-hmm. ndax man du ma sëriñ bu ñuy yóbbu vaar mm-hmm. Euh, ku xam Serigne Abdoulaye Fall xam saltige mbaadaan fépp foo gis vaaram ci àdduna indil tegal ma beneen bi ci topp loolu ngay laaj ci wàllu seet ci suñu diggante ak doomu aadama yi ak ñi nga xamante ne nii seen i yitte yëpp maanaam jafe-jafe àdduna la ak tolluwaay bi ñu toll gisuñu ndey gisuñu bàyyi amaana nga nekk Sénégal wala nga ñàkk nekk senegal gis ab sëriñ am ci moom yaakaar yëkkati sa téléphone woo ko di ko seetloo mu wax la ak li méngoog jamono nga jël loolu def ci sa bopp bi tuube ruube yëkkati alalam jox la nga dugal ko ci lu ñàkk fayda da ci am loo xamante ni xel nanguwu ko alaaj seex dégg seet fa mu nekkoon ba tey mu ngi fa da ci am xeetu doomu aadama yoo xamante nii seen i mbir faaw nga topp sa yow ni rawaxan moo nekk ñoom bëri na ñoo xamante ni ñu ngi leen di seetal naan leen sangool nanga wala nanga man nanga bëri na ñoo xam ne seen i mbir sarax rek ko téye alaaj seex dégg dee lenn rek ko mën a fànq ci àdduna muy sarax nit nag fekk mënoo koo seetal ba xam biddiwoom xam ay mbiram fu mu toll xam ay mbiram gàllankooram fu mu nekk xam lan moo kale ay mbiram ba mën koo décanté moo xam ci wàllu seet wala ñaan wala sangat loolu feeg mënoo ko ci sëriñ bi nga xamante ni yaa ngi dem ci moom am yaakaar mhm. mu tojol la ko ba mu leer na la kii lii mu wax du ay làmbatu maanaam seet nekkut foofu waaw seet nag amul kenn koo xamante ni dañ la koy defal naan la da nga ñuy waat suba wala ginnaaw suba képp koo xamante ni nii bëgg nga ko mhm. fa nga ñuy woowee ci kàttanu yàlla bu fekkee jàppuñu mhm. fa lañ la woo fa lañ la koy seetale woo la wax la ci lu leer nañ incha allahu rabbi. mais saltige tey dina dugal ci lu doy muy jaaro dama dégg ñu da ngay joxe jaaro boo xamante ni pour nga jox ko ni sax lu jafe la mais kooko a jox addunaam ba tey ma ngay neex te dootu naqare ba ilaa yawmi diin. alaaj seex dégg jaaro. bëri na ñoo xamante ne ni tudde nañ seen bopp ni ñoom ñoom moom jaaro. bëri na ñoo xamante ne ni nañ seen bopp ni àdduna ñoo ci dàq jaaro. bëri na ñoo xamante ni ñu ngi namu. ci internet bi. ni jaaro kenn mënu leen ci ci àdduna. alaaji Cheikh dégg bëri na client yoo xamante ne nii ñu ngi may woo di ma joytu ci wàllum jaaro ci liñ leen wax ni ci la jaaro di dox. waaw ba nga xamante ne nii amoon nañ yaakaar yooyu te ña leen ko doon ña leen ko doon liggéeyal. ba yëkkati jaaro jox leen bëri na ñoo xam ne seen jaaro dama ko nangu tijj ko waaye ba ma ko tijjee la ma ca fekk hmm. man ruus naa ci sama digganteeg sama borom loo xamante ni dina ko sama moroom doomu aadama te mu wér na ma ni loolu du dëgg hmm. ëllëg ma di ko layoog sama borom ndax jaaro mënoo koo liggéeyal nit liggéeyal ko nit jox ko ko bala nga xamante ni moom nga ko jox bu dee ci wàllu teraanga hmm. bu dee sa loxo dafa bënn bu dee nekk nga nit koo xamante ni loo yor du toog ci sa loxo wala nga nekk koo xamante nii da ngay am alal muy ñëw waaye doo xam fu muy jaar wala nga bëgg alal kese kese kese kese mhm. ñu liggéeyal la jaaro jox la ko mhm. boole ko ak sangat gi muy àndal ak cuuraay gi muy àndal ñu jox la ko nga jëfandikoo ko mhm. barke bi yonent yàlla Muhammad giñ naa ko ci Cheikh Ibrahima Fall du toog ñeenti fan yoo xamante nii gisoo njariñul jaaro bi ni muy def ci yow te xalaa kulli aalin lañ lay wax ni moo koy toj leen kese la dama la koy wax fii njariñ yi jaara ji yëpp yi nga xamante ni moom laay defar la nga xamante ni mooy toj jaaro bi lenn nga ànd ak néew dem ci ay armeel ñuy gas kàmbu néew ngay wàq sa loxo ngay wàq sa loxo mhm. day toj jaaro bi wala yow mi nga xamante ni da nekk ci àll mhm. du ci teen mhm. bàgg ba wadd ñu jox la bant la génne ko nga takk jaaro bi di ko génne wala ñu yor la ngay génne jaaro yu may liggéey yooyu rek a koy mën a toj waaye képp koo xamante ni jox nañ la jaaro wala nga dégg mbirum jaaro ñu liggéeyal la jaaro jox la ko jaaro ba jariñul dara ci sa loxo nga takk ko ñetti fan ñeenti fan gisoo lenn lu yokk ci yow du alal du am am uh-huh. du xaalis bu dajaloo uh-huh. wallahi lazim tekkel te sànni te xam ne jaaro ba jariñu la dara jaaro nit koo gis koo xamante ni nii maanaam jox nañ la ko liggéeyal nañ la ko uh-huh. man sëñ Ablaye Fall borom jooni jooni bu la fekkoon ci fukk tey bu ginnaaw subaa wala bu semaine bi jeexee dinañ la ne dinañ ni kii am na ci lu mu nekk muy loo nekk loo xamante ni lu wér la loo xamante ni ci sulmaan yu lañ koy waaw Euh, xam-xamu biddiw euh, ñëw nañ ci sànq am na loo ci leeral ci wàllum seet messi sëñ bi li ma bëgg tey ñu dugg ci mooy kaaraange dama bëgg ñu naan euh, saltigéeri ñoo man kaaraange aar doomu aadama lu gën a baax ci kaaraange wala toj liggéey wala ay fert wala saalum wala lu bon daal. alaay see dégg li gën a doy waar ci àdduna. mooy ndaw lu nekk ci yoon. ay waajuram yaakaar ko. ay mbokkam yaakaar ko. mu nekk xale bu ndaw di soog a jug. am bunt. boo xamante nii ñëpp ñu ngi koy commencé bàyyi xel nga nekk ak say mbokk wala nga nekk ak ñu la jege amuñu lenn luñ la yéene ci say wàllu teraanga te ña lay yaaka yéene ci sa wàllu teraanga ñoom ci say teraanga lu ñu dund tey jii boole ci kenn wokkoon dara feebar ñu woo wax la ko bu doon téeméeri junnee koy faj buñ la woowee nga yëkkati loolu def ko ci ñoom te ñoom koom moom ma ngay def ci moom loolu tey gi ñaa ko ci Cheikh Ibrahima Fall bu ñu yëkkati woon paaka jox ko wala ñu ne diw de boo demee ci sëriñ nangam boo demee diw boo ko liggéeyee nangam ak nangam ak tumuraanke dina ko dugg moom jaral na ko loolu noonu ngir wëlbatiku maanaam jël ak loraange teg ko ci sa kaw nit ñi kenn yéenatut kenn dara di nga bokk ak nit ndey ak baay wala nga bokk ak nit benn deret nga nekk ab biddiw ci seen biir di def lu nekk ci seen biir jël sa alal gépp ñàkk ko ci ñoom te ñoom saa suñu xëyee ñu ngi dox ci loo xamante ni lu lay gàllankoor la ngir nga mel ni ñoom mhm. léegi ànd ak ndimbal mhm. bu fekkee nag jamono jii ñu toll waaw ñi nga xamante ne ni ñoom laay waxal mhm. muy sëriñ sama mbokk sëriñ si ñi nga xam ne yàlla may ne leen ñu jëflante ak doomu aadama yi amaana ñi nga xam ne nekkuñu Sénégal nekku bitim réew nekkuñu ak ndey nekkuñu ak bàyyi yaakaar leen kaaraange képp koo xamante ni nii guddi yi amoo ko na nga jàpp ni sax àdduna moom da ñëw ngir seetaan si rek waaye sax mujj moom mun naa bañ a rafet ndax fa tax fañ ko teg mooy jamono jii ñu nekk képp koo xamante ni amoo kaaraange gu wér gu wér gu wér wér mhm. lay toogaale ci yow wallaahi laazim du yàgg ci yow ndax nit ñi bàyyeetuñ kenn ak sagoom mhm. alaaj dee kaaraange maa ngi ciy liggéey loo xamante ni nii te bu ma la ko joxoon nga jëfandikoo ko ñetti fan ak colloor gi muy àndal mhm. li des ci sëg dund amul képp koo xamante nii dina la mënal dara lu toll ni tarafatul xay ni wala muy sol ab dàllam di dem ci ab sëriñ di la liggéey te jëfarut wala musiba dalu ko boo xamante nii da nga ko fekk ci àll mu dee médd nga jël bëñ ya maanaam fexe ko dëbb ba mu wow am loo ko booleel loo xamante ni maanaam lay doon gis nga loolu ma la ko joxee ciwri jox la ko nga sangoo ko ba àdduna tikk ku la liggéey korte lay doon ci moom wala musiba ba dal ko boo xamante ni far force sa tur lay tudd di la baalu àq. ba keroog nga koy jégal mu soog a jóg mën a doxi soxlaam. mais si Ablaye bala maa ñëw ci Tapha Tine Balla si Ablaye nopp jigéen ñu bëri dañ ma koy jooytu naa ma bu àgg ci sëriñ mi waxtaan ak moom ci moo gën neex ci rataxal ab diggante. waaw diggante Alaaji Seex Dégg a rataxal mooy euh, rawatina nag fa yii Alaaji Seex Dégg dinaa ci ñëw. nopp sëriñ boo gis maanaam mu ni la nopp 24 heures amul wala nopp gu wér amul jàppal ne xam-xamam moo soriwut alaaj Seex dégg dafa am loo xamante ni maanaam bu nekkee ci yow jaral boo génnee àllu Casamance bi boo duggee Abene Bignona Jululu Kafountine Dumussu bir bër yaa àll boobu noonu yëpp amut fu ma ci defut ay weer ngir sàkku li nga xamante ni ni maanaam mooy xam-xamu sulmaani yu loo xamante nii da ngay boo koy jëflanteeg doomu adama yi boo leen nee altine 11h la ma wax ak yow dina am altine 10h balaa ñoo yegg ci 11h googu la nga wax ak ñu am ndax jamono ji nit ñi foofu lañ toll seen dara xaaratul laaj non bu 24 heures man sëñ Ablaye Fall man maa ko waxoon te maa koy waxaat. sëriñ bu ko wax wala sëriñ bu ko dégg ci àdduna. Mm-hmm. wala ku dem ba toog ba naan nootu 24 heures ci man nga ko déggee. Mm-hmm. te maa ngi ko génne woon ci nootu ndawal bi nga xamante ne nii mooy noot bi ma fi génne woon. doon ko liggéey te ba tey jii nii nii nii nii nii mm-hmm. sëriñ su ne la yor na ko waxu la dëgg. ci internet bi la ñuy génn ci seen diggante ak doomu aadama yi di doxe ay tappale yoo xamante ni noonu lañ koy doxee di lekk xaalis jàmbur ci loo xam ne ñañ koy tey balaa suba 24 heures gis naa ko ci Cheikhul Khadim lañ la am te am na yeneen ak yoo xamante ni bokku tax sax yooyu noot fa mu nekkoon ba tey mu ngi fa bu fekkee ne da ngaa nekk ak sa soxna wala nga nekk koo xamante ni yàlla di leen a boole yow ki nga xam ne yow mi ko góor ki nga defal ko lu ne jigéen ki teraanga uh-huh. lu ne nga sonn ko ci moom uh-huh. mu jékki-jékki bis ñëw mu war la uh-huh. wan la ginnaaw na a yàq sa àdduna wallahi lazim bis bu ñu déggantee ci kàddu lépp loo xamante ni lu la metti woon ci la dinañ la ko téyel goo xamante ni li des ci dundam boo ko doon fanaan loo ci àll wallahi lazim fa lay fanaan da ngay gis soxna yoo xam ne dañuy am góor am ci ñoom yërmande trop sonn ci ñoom jël seen alal investir ko ci ñoom ngir bëgg lu leen neex bëgg seenu tekki nga nekk góor gu baadoo la uh-huh. kooku jël alalam gépp yamale ko ci yow bëggul lu sa yërmande ak sa avancement uh-huh. nga jekki-jekki dem ba jekk bis ñëw nga bëgg koo war war goo xamante nii li des ci dundam kooku mën ngaa yàq àddunaam ba lépp luy góor mën na koo suur alaaj seex dégg ngir yàlla yonente bi uh-huh. bu fekkoon ne da dem ci téeméeri sëriñ dem ba découragé wu wala nga dem ba amatoo fenn foo jëm woo li nga xamante nii moom nga bëgg rek muy loo xamante ni mu del ci say wat del ci say tànk di wéy ci seen digal ba keroog muy faatu wallahi laazim boo ko doon fanaan loo ci nu mbalit buñ ko téyee ba àdduna tukki fa lay fanaan dootu fa jug lii man maa la ko xalaaj Cheikh dégg te it waxewuñ lenn suñu naf su bakken ndax amul lenn loo xamante ni dinañ ko xool di ko wax ci suñu diggante ak suñu borom loo xamante ni ëllëg suñu ñetti fanu bàmmeel alalu àdduna dinañu ko jaral lépp luy teraanga bu yàlla di yorloog doomu aadamaam yàlla suñu borom dimbalee niñ ñuy ab taalibe suñ Tuubaa ruusa wax loo xamante ni ëllëg dara nañ fa fekk man du ma sëriñ buy laaxatu boo ma wooyee boo ma soxlaa boo ma bëggee gis bu ma nekkee Ndakaaru wala ma nekk Mbuur ba Cees ba Ndar fu ma boo ma bëggee gis dinaan la ñëwul bërëb sàngam heure sàngam boo ñëwee danga ma fekk boo boo ma soxlaa téléphone ak sa yitte lu mu mënti doon buñ ci jëflantee incha allah rabbi la ñu warloo yow bu ñu nee la suba heure sàngam danga nga ci jot da nga jot te it amul képp ku ñuy nangul la ñuy war a jëflante yow te woon la ko doo ko gis jëxëran déedéet man liggéeyu ci alxuraan na leer mhm. man ci sulmaani yu laay liggéey man ci wàllu xam-xam bu ñu laay liggéey ndax nit ñi la seen aajo toll foofu mhm. defal léegi gisal léegi mhm. foofu lañ toll mais sëñ bi euh, bala maa duggaat sax ci lenn wala may xuus ci lenn malfaiteurs yi nekk ci internet bi di dagg sa vidéo di ko dugalaat ak di créer ay faux compte naan ñoom ñooy Cheikh Ablaye Fall mais saltige ñooñu tey lan nga leen wax ñooñu di arnaque. waaw laaj dégg xam nga am na ci loo xamante ni xeeb sa bopp la. baa nga xeeb sa xam baa nga xeeb sa maam bala jàngal xam-xam. man ba fii may waxee yow. li nga xamante ni bëri na ma di ko liggéey ci wàllu sulmaan yi sama maam bi ma ko jàngal. maanaam fii may waxee yow am na téeméeri at ak fukk ak juróom nangam te yitteem yëpp moo koy doxali boppam. may doomu Fisal Mbadaan. di doomi Njaajeen Murit. am na ci loo xamante ni kuy laaxatu du ko wax. alaaj see dégg TikTok bii nii. bëri na ci nit ñoo xamante nii ñu ngi jël seen ñaq di ko envoyé ay doomu aadama yow nan ngay mën a gisee compte jàmbur wala nga gis koo xam ne dafa publier dara rek ni la lii lii moo koy faj lii boo ko defee nii lii boo ko sangoo nii nii koy faj te yow kay lay wax loolu ko xamoo kan la gisoo ab photom gisoo ab vidéom numéro rek nga gis boo ko woowee jot ko yónnee ko sa xaalis boo jotul ñaan yaa teg sa bopp yaa tooñ sa bopp nit da ngay jub ka nga xamante ni yaa ngi jëf jëflanteeg moom boo ko woowee na la wax lu leer naññ même boo mënta sol sa daal sax dem ci moom na xam ni kat man mii sëñ Ablaye Fall mii laay waxal sëñ Ablaye Fall mii may waxal bërëb sàngam la dëkk tey jii ba ma ko yónnee sama a gisee ak moom na ma lii waaye bëri na ñoo xam ne di jox ay tegtal ci TikTok ñu di ko jëfandikoo wallaahi laazim ñu a lor seen bopp ba àdduna tukki dañuy yàlla Muhammad ñoom ña koy joxe sax bu baaxoon ñoom dinañ tal leneen lu dul toog ci TikTok bi di joxee secret alaaj Seex dégg dama ni la yow yow mi ngi ni da ngaa toog ci TikTok bi mhm. di joxe secret yoo xam million lay doon mhm. te saa soo xëyee di ci mhm. yow est yow loolu bu la wuyu si woon di nga am jot boobu nit ñi nañu yeewu mhm. te ñu bàyyi caaxaan ak tappale yi nga xamante ni ñu ngi koy doxe mhm. damaa bëgg yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jël seen xaalis di ko envoyé nit ñi mhm. ci internet bi rawat na ci tiktok bi naan leen lii tegtal nangam la lii tegtal nangam ku ko ci moytuwul di nga sangoo loo xam ne ba àddunay tukki ci ak tumuranka ngay doon wala ñu tegtal la yoo xamante ni da ngay jékki rek def ko di nga def mu dëppoog rawaanu jàmbur boo xam ne ba àddunay tukki ci ak tumuranka ngay doxi nañu bàyyi tappale yi nit sa xaalis wala si xam-xam wala ak lu mu munti doon koy mënti jëflanteel mhm. na nekk koo xamante ni koo xam lay doon ngay jëflanteel moom ci lu leer nañ mhm. boo ko wowee jot ko doo yónnee nit sa xaalis ba nopp mu bloqué la wala mu bañ laa jot mhm. wala nga war a jot sa ñaan doo ci jot loolu baaxul àq la alaaji Seex dégg man ku ma jëflanteel nga tàkk la ilaha illallah lay wax ni yow billaahi wallaahi taalaahi barkib Sëriñ si Saalihu Mbàkke ko Cheikh Ibrahima Fall ku ma jëflanteeg yow billaahi barke alxuraanu karim nga tàkk ndax la may def xam naa ko ti wàllu cosaan laay ñaan te yow ma ma koy defal dama lay yéene te boo ma gi bëggee gis gis ma foo bëgg man ak yow ñu jàkkaarloo fa gis naa ko Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu jàkkaarloo fa dama ne nit ñi dañoo sonn te amuñu ku leen dimbali alaaji Cheikh dégg caaxaan yi ci boppam ñoo fi bëri hmm. euh, Balla Gaye Tapha Tine nga ne ngembu Tapha Tine euh, tey yaakaar naa am na loo ci war a leeral man daal li ma la ciy wax ba wax la ko daal alaaji Cheikh dégg mooy kay daanaka du daan loolu yàlla xam dogalu yàlla lu ñëwagul la waaye dama ne la Tapha Tine wallaahi lazim nax nañ ko nañ ko ci lii ma gis ñu naan Aziz Aly Ndiaye àndut ak Balla Gaye jàppaliwu ko ci combat bi li mu def ci combat bii ak li mu daj ci combat bii barki yonenti yàlla Mohamed gisuma combat bu nga ko mës a daje beneen bi ci topp nag waxoon naa ko te dinaa ko waxaat combat bi dimaas nañ ko bàyyi xel ak asamaan si taw si sarax si ci war nañ ko def buñ ko deful combat bi xanaa alaaj Seydi xanaa xam nga combat bi li ma ci gis maanaam maanaam combat bu nar a ñàkk fayda lay doon gis naa ci mbër moo xamante ni jël bu ñàkk faydaa ko nar a daan foofu nag laa ci yem vaar dina ñëwaat lu ñuy waxaat lay doon waaw euh, sëñ bi tey euh, lan nga bëggoon tey ñu gën cee waxtaan te waxuñ ci alaaj Seydi dégg euh, ñi nga xamante ni nii dañoo nekk bitim réew sonn nañ trop wallaahi la azim barki yàlla Muhammad sonn nañ trop bëri na ci doomu aadama yoo xam ne ba ci suñu mbokk sëriñ si ameel nañ ñoo leen àq boo xamante ni nii wallaahi laazim bu leen wuysee ci àdduna waxuma leen seen bàmmeel waaye dinañ suur àdduna alaxira ndax da cee am loo xamante ni nii dafa metti bëri na ñu nekk bitim réew fukki at fukki at ak juróom mënuñoo ñëw Sénégal nekk fa am fa jafe-jafe ay këyit ñu dugal seen i këyit mu nekk en cours mënuñoo fexe ba jot ñu woo la téléphone nga génne ni mën naa nangam uhuh. nga laaj leen xaalis bu dul jeex ñu jox la ko boo noppee boo jotee ci xaalis ba boo noppee boolaka nga leen wala nga jëflanteeg ñoom loo xam ne da leer ni lii nii ci say tappalee bopp nga ko defee uh-huh. da am loo xam ne kenn def ko kenn si yàlla suñu borom subhanahu wa taala sa digganteeg moom la yow mi nga xamante ni nii uh-huh. lii déglul bu baax li ma lay wax dangaa nekk bitim réew gee nekkoo fa ak ndey nekkoo fa ak baay jaaxle uh-huh. nga nekk ci ay problème mu këyit yàgg fa loolu mun a am këyit bëgg a dellu ci say soxna bëgg a dellu say njaboot di ñaan lu fu ne munoo am dara dem ba ñàkk ci sëriñ sépp yaakaar ngir yàlla bul xaat di wool ma alaaj seex dégg fii yaakaar du fi tase mm-hmm. te yor naa lu may jëflanteeg yéen ci wàllu këyit ci sulmaanu yi loo xam ni mm-hmm. barkib Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ku ma ci jëflanteeg yow sa aajo saafaraw ci nu mu gën a gaawe alaaj seex dégg ñaan du ay tappale du ay pexe te fa mu nekkoon ba tey mu ngi fa ñun ay murit lañ ay taalibe Serigne tubaa lañ am na loo xam ne jombalee nañ ko suñ bopp dañoo suur démb tey soogu ñëw te ki ñuy jox dépasse añ siwul muy jëmi sëñ Touba ji moom rek lañ doyloo nit amut màqaama dafa mel ne yow Serigne Touba amoo ci sago man Serigne rek laa bëgg nit amut màqaama mukk mukk ci àdduna ñuy wax lu ko neex loo xamante ni ëllëg dara nañ ci fekk képp koo xamante ni am nga jafe-jafe këyit wala sa kayit nekk en cours wala nga topp ci ba sonn mënoo ci am benn pexe bu sotti barki Cheikhul Khadim woo ma boo ma woowee incha allahu rabbi bu ñu déggantee ci ay kàddu ba ma mën a am sa ak sa tur waajur bu jigéen rek am na ci loo xamante ni secret la bu ma ko jëflantee ak yow barke Serigne Saliou Mbacke lépp loolu mosoon a metti ci sa àdduna des nañ la ko saafaraal ci nu mu gën a gaawee lépp luy këyit suñu borom dina la ko ñoddil tegal tegaloo ko ci sa loxo bi ci nu mu nu mu gën a gaawee bëri na ñoo xam ni wàllum sarax rek leen téye ci lu ñàkk fayda lay doon topp ci ay ati ati ati at lañ bëgg duñ ko gis topp seen xaalis lu ñu am jox ko Serigne si lu ñu am jox ko Serigne si te ñaan du xaalis yéene la waaw yéene la ak xam bu wér alaaj Seex dégg sëñ bi ñu waxtaanee lenn loo xam ni tey bëgg naa dugg ci muy ngóora dama dégg ñu ne dafa am néew kattan bu doy waar booy joxe. waaw alaaj dégg li nga xamante ni nii mooy wàllu kattan bëri na ci kilifa yoo xam ne seen i soxna yàpp nañ leen. bëri na ci kilifa yoo xamante ni seen i sey ni ñàkk kattan a tax seen i soxna mënuñu leen ko muñal ba seen i tas bëri na loo xam nag jàngoro la muy nekk ci nit muy wàllu émurit bëri na góor ñu mu yàq seen góor a trop trop trop trop trop ci jamono ji faaw nga fi émurit ak siti Alaaji Seex dégg hémorroïde ak ndoxum sidit bi ñetti fan la yaakaar naa ni fan yii ñi ma gis ci internet may wax bëri na ñoo xamante ni ba fii may wax yow seen i commande nga fi a jugee ci diggante ñaari fan yu gàtt yoo xamante ni day génn dem bitim réew hémorroïde képp ku la koy fajal traitement bi romb ñetti fan bu la neexee woowaat ko ko sama xaalis wala la nga amu wala tas nga sama yaakaar Alaaji Seex dégg jàngoro yi mu la mën a juralaat ci si biir moo bëri rawatina bu picc bi am na ñoo xam ne mbooloo mu mu deñ wala fu ñu mën a toog dañuy sax rus a génn di yàgg ci bërëb ngir maanaam sonal gi leen di sonal dem ba mën a yàq seen góor a yow mi nga xamante nag da ngaa dem ba ñàkk kàttan amatoo benn kàttan ci sa biir néegu say am na butéel bu may joxe amaana mën naa nekk butéel liquide amaana mën nañ laa jox sunguf si nekkul loo xam nag dañ la koy jox ne la naan ko boo ko naanee boo àndeeg sa soxna tey incha allahu rabbi di nga sant sa soxna dina bëgg bu loolu jeexee jeex na nga delluwaat ci ñàkk kàttan gi déedéet man wàllu kàttan li ma ciy joxe maanaam loo xamante ni luy dox ci sa siddit la luy sax ci yow la à bu ma la joxee traitement bi ni la jël ko ni nga ko war a jëlee ba àdduna tukki barke yonent yàlla Muhammad dootoo ñàkk kàttan alaaji Seex dégg far force nii ma la ko waxee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam noonee lay amee ci yow siti tamit traitement bi wiisuwul ñetti fan ñoom ñaar ñoo yam seen i jàngoro daa xaw a nuroo waaye képp koo xam ne mu ngi ci yow nga di ko saagane mën naa yàq sa àdduna ci lu ñàkk fayda alaaji Seex dégg mais dama gis seen diggante boobu lu mel ne ay faji rab da ngeen ci ay lool rab ak jinne digg naa mi ngi yàq lu bëree bëri ci askanu jamono ji waa dama ni Youssou Ndour lu mu fi woyoon daxaar ga ci yoonu mbaadaan ñun dama ne la ay doomu tuur lañ ñun ay doomu fisel mbaadaan lañ ñun xamuñu lu dul rawaan ab rab ab jinne yaa ngi may dégg ak tasuk dëmm am na ci loo xamante ni nii boo ma fekkoon fa ma ne fa ma toog fa ma samp bu ma nee la alaaj seex dégg lii moo gën a ndaw ci li ma samp ci kër gi danga naa ma déedéet loolu nag du lu ñuy wax lu ñuy jëflanteeg doomu aadama yi la muy dañ bëri na ñoo xamante ni seen àdduna rab a yàq. du ñu dugg lu lu sotti. lu ñu def mu yàqu. yaakaar ju ñu am mu tas. liggéey bu ñu am bu ñu leen ci woowee bu ñu fa amee ñett fan ñeenti fan une semaine balaay mat weer. ñu dàqaat leen am na ñoo xam ne raba leen sonal am na xeetu rab yoo xam ne nag bu ne la mun la koo dindit la dëgg am na xeetu rab yoo xam ne nag li ñuy sempi ci yow ba mu set wecc la waaye bëri na ci ñoo xamante ni li des ci seenu àdduna maanaam raba leen ko nar a yàqal te la war ci ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour nga gis sëriñ bu la liggéeyal wala mu seetal la ba toppal la ba xam lan mooy sarax si ba xam lan mooy dindi gàllankoor bi ba lan mooy lan ngay neexale rab bi ba li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe dootu ko yàqal yombatut sëriñ si amatuñ jot boobu jàpp nañ ne ñu la yónnee xaalis rek war ngaa war a mën a lekk wala nga jël def ci sa poche wala nga xol keneen ku la ko yónnee waat ngay def ci ay pexe di dox ci yoo xamante ni ñu ñàkk fay déedéet ñun doxewul noonu amut benn doomu aadama boo xam ne di nga yëkkati sa téléphone woo ma jëflanteeg yow te woo ma téléphone ni ma sëñ Ablaye la ma yeex a xamanteeg yow laay réccu barke yonent yàlla Muhammad rab dafa am garabu cosaan guñ koy liggéeyee di la ci ñaanal topp ko ba mu set wecc wecc wecc wecc wecc wecc xool yi yi ñu dindiloo ko alaaj see dégg ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV li ñuy tàggatoo mooy lii xew ci dëkk bi ñu naan dañoo ñàkk yaakaar ci nguur geeg dañoo ñàkk yaakaar ci sonkook lañ fi waxoon defuñu kook bëri na sëriñ su daan wax waxatuñ waxoon naa ko bu njëkk laataay yëpp da xew dama ne ab sëriñ day am palaasub sëriñ ab sëriñ du politique ab sëriñ yoonu politique yoonu politique war ta nekk ci moom bëri na ñoo xamante nii seen yitte yëpp ca début laataa tëli tëli jàmm seen yitte yëpp ci politique lañ ko defoon foo tourné gëstu gis leen fi mu ne mënatu cee gis kenn kuy wax ci wàllu ñaan la la yàlla digleel ci wàllu man de politique gu ma xaw ma luy politique ñaan yàlla laa xam doomu aadama yi am seen i jafe-jafe ami gàllankoor woo ma ma saafara leen leen ko te yàlla suñu borom rek tax bëri na ci loo xamante nag ndaw yi ñun ñu ngi koy daj amul benn sëriñ bu la mën a ñaanal nag te say waajur seen i xol seddul ci ñoom nañu góorgóorluwaat ci waajur yi góor góorgóorluwaat ci liggéey te fas yéene gëm seen bopp te bàyyi ñii ñuy topp di yaakaar ci ñoom ndax tey koo yaakaar yaakaar yàlla la yaakaar góor góorgóorluwaat ci seen jëmm yi tey sàkki sarax tey sàkki sarax tey defar seen jëmm yi képp koo xamante ni ni tal nga ko tal nga sa bopp barki Seexul Xadim di nga raw sag maas nit nag ab jaam boo fekk demoo ba toll foo xamante ni saa soo xëyee boo gisee sa morom am fukk te liggéey képp may ko ko war ngaa laxasaayu liggéey dem ñaan lu ji sangatu tàllal say waajur say loxo ni kii tey fukki yi mu am dinaa dem takk sama ndigg liggéeyi fa yéene am ñaar fukk ak moom loolu mooy jom képp amul benn sëriñ bu la mën a ñaanal la nga tëdd ci sa miir néeg bee wala mu jox la ak sangan nga tëdd ci sa miir néeg bee naan li ma sëriñ bi jox laay xaar di xaar mu fekk la sëriñ bi dangay ngay nax sa bopp ab sëriñ bu la ñaanalee da ngay góorgóorlu génn dem wuti dara mun a dajeeg lañ la ñaanal su ko defee ab barke mën a am wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëñ Abdoulaye Fall saltigué de Fissel Mbadane la ñu daloon tey doon def ak moom euh, leeral ci li war a xew ci combat diggante Balla Gaye Tapha muy borom baatin bu yàlla may ak jagle nag ci li muy yëngu muy wàllum ñaan côté sungu fukki reen ak cosaan ak aada lii la xam te lii la dond moo tax gis ngeen ku ci faj pour nga gis résultat dafay yomb ay ci mbokki numéro yaa képp ku ko ci woo ko jot yéen ñu doon topp dañu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah